bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima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 ñaan yàlla sunu boroom guddal sa fante wéral la ba sa bëgg ci sëriñ bi lépp nga amee ko ni nga ko bëggee barakat Cheikhul Khadim di nuyu sa bokk yu baax yi nga xam ne mooy njabootu sëriñ Touba gi nu fekk ci jataay bi maa ngi nuyu sëriñ Modou Mbakke moom sëriñ Cheikh Oumy mu Cheikh Abdoul Fadal muy sunu sëriñ bi sunu soppe di sunu xarit di nuyu it sëriñ Cheikh Thioro mi mu feggool ak mboolem njabootu sëriñ Touba gi fi nekk yëpp di nuyu ahlu xasaa yi di fi nekk yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu it sunu bokki communica communicateurs yi fi nekk yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax ginnaaw sëñ Maxtaar Mbuuba yor kàddu gi bu ma tegee nuyoo bi ci loxoom dana danañu ko mën a jàllaleel ci ñoom ñëpp ñuy suñu wëlëri wi ñu feggool mu sëriñ Changou di nuyu sëriñ Mahamadan di sant yàlla yit ci jataay bi nga xam ne sëriñ bi def ko woote nuyoo taalibe it mën naa ko jaare ci sëñ Gaynde mi nga xam ne jëwriñ la ci sëriñ bi bu ma jëlee nuyoo bi teg ci loxoom euh, mu jaar ci mboolem jëwriñ yëpp ndax ginnaaw sëriñ gaynde jëwriñ la kon maa ngi teg nuyoo bi ci loxoom di sant yàlla mi ñu may tawféex it ba ñu ñëw fekke si jataay bii nga xam ne sëriñ bi daf ko woote te jëmmi yàlla rek tax mu woote ko ak jëmmi sëriñ bi di ko defal koo xam ne it euh, njariñul jullit ñëpp la waaye njariñul taalibe yëpp la muy Cheikh Abdoul Ahad mu di koo xam ne doy na sëkk royteef ci ñooñ jamono ci ab taxawaayam waaye ci ay jëfam waaye ay jikkoom mu di koo xam ne histoire du ko fàtte mukk ngir taxawaay bu rëy bi nga xam ne taxaw na ko ñeel lislaam taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko ñeel yoonu murit waaye taxawaayam ci sàmm humanité da doomu aadama xam lan mooy warteefam xamit li tax boroomam sàkk ko yan responsabilité la doomaadama gàddu loolu sëñ Abdou Lahad Mbacké daf ñu ko jàngal mu di koo xam ne nag sunu borom daf ko bari ay jagle yu mu ko jagleel dafa am loo xam ne euh, fadlu taxis la yàllaa koy jagleel ka ko soob am loo xam ne nag euh, lu ñuy faggu la ak njàmbaar ak yitte ak góorgóorlu dana ko maye mu mel ni nag euh, Cheikh Abdou Lahad doy na ci baax rek bu ñu ne diw ñu ne sëñ Touba mooy way juróom ndax sëriñ Touba wépp tagg wu baax wépp tagg wu jot jépp wax ju rafet moo ko yeyoo loolu Cheikh Ibrahima Diop almachari doon wax ne fa kullu matxin baliixin qiila fi rajulin fanta saaxibuhu yaa ayyuha rajul lu tagg jekk-jekk rek buñ ko waxee yaa ko moom yow Serigne Touba muy koo xam ne kon bu nu nee Cheikh Abdou Lahad tey Cheikhul Khadim mooy way juram mënee su ca taggaat lu gën a rëy lool ci aw askan ak sell ak jikko waaye tawféex jiit mooy béréb bi mu feeñee jamono te moo di al buqaatul mubaarak muy Jurbel di pàkk boo xam ne bu sëriñ bi jógee ci géej gi dem gànnaar ba dem Thiéyène fa la mujje mooy bërëb bi mu gën a yàgg it ci béréb boo xam ne ci jamono def na fa diir bu toll ni lam fa def defe naa bi mu sañcee Touba bi mu sancee Daaru Salaam ñaari at la fa def bi mu sancee Touba it juróom ñaari la fa def Thiéyène Mbacke Bari juróomi weer yu manqué tuuti la fa def géej gi yëpp juróom-ñaar juróom-ñetti at yu manqué la ñeenti at gànnaar juróomi at yi jolof mu ceen ay fukki at ak juróom nag moom la sëriñ bi def njaareet ba ko fa tubaab bi yóbbu it dañoo jàpp ne bu ñu demee pas-pas bii ak dëgër gi mag ñaam bu nu jaxasoog niti taax yi dana am lu wàññi ci ñoom waaye sëriñ bi xamal leen ne yéen a ngi sakku sama dox jëm njaareem waaye boo leen xamoon li ne ci dox gii may dox di jëm njaareem doo leen ko ndax dem gi yéen dee rek la leen di jural ngeen fay ba faw ak ak i lor waaye man nag tedd nga la may jural akuk sax kon loola won na nasaraan bi ma àndaloon it melokaan njaareem it jumaa ji njëkk a taxawal yàlla dogal na fekkee ko ñu liggéey ko ba mu sotti njaareem la amee muy jumaa ji nga xam ne mooy jumaa yi njaareem nga xam ne keroog bi mu noppee sëñ Tuubaa dina jumaa ji mooy misbaaxu axudu sama wa najaatu waa asamaan seen làmp bi leen di niital mooy jumaay njaareem waaye texeeg waa suuf it mooy jumaay njaareem nga xam ne fii terrain bi nekk pàkk bi ñu def jumaa ji Cheikh Issa Diène ko jënd ci ñeent fukki dërëmi ngor nga xam ne may sa Ndiaye moomoon euh, pàkk bi jaay ko Cheikh Issa ci ñeent fukki dërëmi ngordu nga xam ne nga gis naa signature Cheikh Issa Diène ak signature Maysa Ndiaye ak atelier commandant bi nga xam ne de la corps gis naa signature yooyu maa ngi ko gisee sii di moom Serigne Naar Diène kon muy béréb boo xam ne fa la waxee woon ne lahu xitaabi ama talsasin la daa buqaati lati tunirul balada kon day mel ni dynamo électrique bi nga xam ne day leeral réew mi sëñ baa ngi ko inséré njëriñ ci atum lësës moomu nag bañ demee ba balsës di 1332 war a doon 1914 ci la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké feeñ ba mu feeñee it sëriñ bi dafa wax ci moom wax ju rëy ba ca jëkk mooy dafa wax ne gan gi fekkul ci àdduna ku ko gën te ku ko gën it ko fi loola doyoon na ngëneel waaye da tegaat wax ne am naa ci moom yaakaar te sëñ Touba nee na sama yaakaar waxuma yaakaari sëñ Touba waaye nee na yaakaari ku ma yaakaar sax du tas te loolu it da ko da ko bind. raja uman bi yataallaqa yura mu xaqiqan u maye suulan yura kon ki nga xam ne ginnaaw ku ku la yaakaar yaakaaram du tas moom yaakaar yaakaari boppam nag wa raja i lam yu xëy bi la wax sama yaakaar it du tas mukk mu waxoon ne am naa ci moom yaakaar ba mu mu dolli wàcce it jamono moo ci jëkk tudd Abdul Ahad sëñ Tuubaa wax ne ku man tur wi ku nekk saw yaram araamal na sawara loolu it jagle la gu yàlla jagleel Cheikh Abdou Lahad ba mu tollee ci jàng it sëriñ bi jox ko sëriñ Xamsatu Jaxate na ko nag joxuma la ko ngir cosaan ngir li ngay nijaayam waaye dafa am lu ma def ci yow te bëgg a def ko ci moom mu jox ko sëñ Alsaan Jaxate mu teel wattu alxuraan lool ndax dem sës la mokkal alxuraan te mooy 1342 44 am na ñaari at ak sëñ bi def teg di wam sës ñu Tuuba te déwén sa la bind loolu nag ba mu amee it mu yor melokaan woo xam ne ku ko mas a gis am lu bari loo yëg ci moom mu teel a géeju ci xam-xam lool kawe yitte lool dëkk bi mu njëkk a sanc bi mu koy sanc fukki at juróom-ñeent lam booba Cheikh Moustapha al Karim a ngi fi kon ci atam yu néew ci la sanc Daarul Rahman ci la sanc Kadd Ballooji teelaam yitte lool ci xam yoon yu mu war a jaar ak fi mu jëm nekk liggéeykat boo xam ne it mboolem li di ak njuréelam da koo jaayoon jënde ko ak taalibe ndax loolu mooy jariñ nit ci sëñ Tuubaa dafa jaay li dox ci digganteem ak Serigne Touba lépp jënde ko ak taalibe bi loola it moo tax bi mu noppee gis Serigne bi it ci waxtu teel amul jenn yitte lu may topp ci ginnaaw Cheikh mu Al Karim ci di dégg ndigalam ci di ko liggéeyal ba ni Cheikh wàcce mu topp Serigne Fallou mel ni kuy door a tàmbaliwaat ab liggéey amul jenn yitte ndax koo xam ne la ñuy wax miraas la doon na ci sa waajur da koo jébbal seex Moustapha ngir ngir ngir jébbaloo ci moom joxe ko addiye wane ne moom day amul jenn yitte ju may rek jëm ci Serigne Touba defoon Serigne bi it muy ndàmbam muy trésoram ndax wax na ko nee ndàmbam ak tedd nga am tey ak ëllëg mooy nekk gim nekk jaamu Serigne Touba mu di ko liggéeyal waaye muy koo xam ne moom Cheikh Abdoul Ahad dafa wone misaal yu bari yu àdduna teg bët moo di jëfam yëpp bi mu nekkagul Serigne Touba it toogab jataayam ci liggéey la ko ñépp xam akuk taalibe akuk doggu waaye it ba mu toogee jataayub Serigne Touba it dafa mel ni dafa simmiwaat mbubb mu jëkk ma solaat meneen mbubb te loolu boo seetantalee xasida gi sëñ Abdoulahi Jaxate def ci moom sëñ Abdoulahi sëñ am sa tuuku ju ñu bokk lépp ba mu koy misaal dafa wax ne Cheikh Abdoul Ahad taqdimuhu jamula waxtasahu llah bilfadli si kamula faxrul muridina man dama damathatuhu li aali waalidi moom maanaam moo kasi mu ne jiitu gi si ñëpp laxat jiitu lu rafet la daal di wax na mooy ki jeexal dundam gépp ci sàmm ak saytu njabootu way juram gi daal ne dafa doonoon koo xam ne kaafin azizun karimun daama yunisuna lam yuxnihi magnamun an naa wa fasila doonoon ku doy ku mat sëkk doon ku tedd moom Cheikh Abdoulaye daan na mës sa yittewoo am koom wala muy jàppe nit am am <clears throat> mësa sa échec it moom Cheikh Abdoul Ahad daal na ko mës a ñëw fi moom it bi wabli juulin yaxiidul mar ay su naxaa maa naala maa raama man yabqi lahu masala maanaam kenn mësu koo jot ca ak tab ak nu ngoo mën a joxe alalam nee na waa waameew ngëneel la Cheikh Abdoul Ahad di sotti ci kum mën a doon ku mës a ñëw fi moom nee na kii wër ci àdduna nag di sàkku ku mel ni Cheikh Abdoul nee na doo ko gis Sëñ moom kenn la koo xam ne amul am kem kenn ku mel ni mu amut mu ne waaye nday joorub Sëñ Abdou Lahad moo raw géejug tab waaye càmmooñam ba di moo raw jaasi ci ay noon aji sopp bu ñëw am yitte boo ñëwee Sëñ Abdou Lahad faj sa aajo lépp loo bëgg rek mu defal lool yum naahu na daa yusrahu sayfu rada yurdil aadi wa yuxtil xibba ma amala am na ku di ab noon sa càmmooñam boobee la lay waaye ku di ab soppe nag tey aji sakku ngëneel boo ñëwee nday jooram boobee mooy waameew ngëneel woo xam ne ci lay tibb di la di la jox moom Cheikh Abdou Lahad mu ne ko yaay koo xam ne it yow Cheikh Abdou yaay xéewalug yàlla ci kaw gox àdduna bépp yaa ni'matallah fi afaqi jumlatiha yaa man ka fi alika lil ihsani ma faida xéewalug yàlla ni sëñ Tuubaa nekkee neexama di xéewalug yàlla noonu nga nekkee xéewalug yàlla yow Cheikh Abdou Lahad te loolu defe naa Cheikh Sidiya waxoon na ko euh, sëñ na ko yaay xéewalug yàlla mu di koo xam ne it dafa ñaanoon ci xasidaam goo nga xam ne da caa bindoon li ci tagg sëñ Tuubaa caa ñaanoon sëñ Tuubaa na ko dama yàlla defal sama alal man sëñ Abdou Lahad nekk wasiila wi may may sa ngërëm lu ma am naa ko tàbbalaat ci sa biir ngir sàkku sa ngërëm te loolu mooy li Cheikh Abdou Lahad jëf lim liggéeyal Serigne Touba melokaan wu rëy la la ko euh, kenn doon misaal di wax ne ko bu ma la doon misaal ci ci njàmbaar de ñaar lay jël ci yow mooy da mel ni Khalid Ibnul Walid wala nga mel ni Seydina Ali karamallahu wajhahu loolu it wone ba mu toogee lim jëkk def mooy miire jumaa ji tam bokkoon ci naalu Serigne Fadilou Cheikh seeb def ko ba noppi defaraat barabu sëriñ bi defaraat xubba yi loolu lépp di programme bu mu def door a yokk jumaa ji <clears throat> jamono bi muy yokk jumaa ji def na ci milliard ak genn wàll te jamono boobu milliard yombul ndax ba ba mu waxee ne mooy li ciy dem ni ci àdduna yi sax loolu jaaxaloon na leen ci jamono bi fi mu toll nan la ci loolu mën a génne waaye amaatuñ li may toog rek yëgaat mu waxaat ci rajo bi ne liñ doon laaj mat na te moom bu masaa songu yitte da koy def muy jenn lu laaj def ca bu matee nag du ca laajaat loolu ñuy wax ne da ngay laaj luñ mënta di ko def fu mu xam loolu Sëñ Abdou Lahad daan def lu masa laaj bu matee loo indiwaat da lay ne lii moom mat na xanaa def ko ci leneen waaye li ko taxoon a jóg mat loolu ak njàmbaar ak dogu mënu koo weesu ci boo gisee ni yoon wi di doxe ak fi fim egg yoonu murit day yoon woo xam ne dafa am histoire du yoonu euh, jàpp ne rek ab kuréel la wala mouvement la wala association la bu dajee ci réew mi rek ñuy man-manante ne ay équipe déedéet yoonu murit yoonu jëf la bi sëñ Mourou Moustapha di di jox téléri cinq million ngir mu mu mu jumaay Touba ji mën a mën a mën a sotti tey cinquante millions yooyee mu cinq millions yooyu mu joxe woon boo ko évaluer ba mu agsi fii dana mat cinquante milliards bi yoon wi jëf dafa yàgg ngir wone ta te alal ju lu gën a yéeme mooy lu yoonu murit masa investis ci béréb nekkul koomu économie moo xam ne ngir gagner bénéfice bu teew la ci yàlla rek lay jëm defari juma defari daara defar lu doomu aadama mën a jariñoo loolu rek mooy lu yoonu murid mas def ak lu mu bari nag Cheikh yëmut ca loola mu def maktaba bii nga xam ne daaray kaamil fii da nga koy dégg waaye jaamia bii nga xam ne tey muy université bi nga xam ne ba mu koy tàmbali xaalis bu baree baree baree bari muy xaaju milliard tàmbalee woon na ko door a def hôpital bi def dispensaire jamono Touba sëñ Fallou ak sëñ Cheikh Gaynde Fatma rek a fi amoon téléphone sëñ Ibrahima ko fi indi ba noppi yokkaat ci ñaar fukki kilomètres yoo xam ne def na ko ci def na ko ci courant ci yooyu di di yokk ci jamono bu nekk bokkul ak nag yokkaat jëmmi lotissement dëkk bi di Touba ba noppi def fi ay ndox nga xam ne fukki forage ak nangam gasal na ko boppam ci dëkk bi di dëkku Touba mu Cheikh Abdoulaye waaye nekkin nag njabootu Serigne Touba gi di nekkin wu yéeme mooy at bu jot li ñuy wax euh, miraas da ko daan defaat sëñ Touba mooy lu ma sa ñëw at mi bu jotee da koy jëlaat séddalewaat ko njabootu Serigne Touba gi yëpp loolu Cheikh Abdou Lahad doon def ngir bëgg sëriñ bi ak jeex ci Serigne Touba ci melokaanu biir ak melokaanu bit waaye yému ca xamaa madinatu Touba zaadaha sharafa wa amanal ahlu wal jiraan wa nuzula mu aar madina dëkk bii di Touba Serigne Abdou Lahad ko aar sécuriser ko nag ci gan ñi fi wàcc ak lu ne xam ngeen ne nii saay saay si bëree ci àdduna di song Touba bu fekkoon ne mën nañoo gis li ñuy wax kon kenn xamul barki dem rek ab fenkat wax ne l'accident mal mooy Touba béréb bi nga xam ne yu bon yooyu fi lay daje dara lu ca dëgg fii moom mënoo ne bitig bii day jaay sàngara dëkk bu dul mooy yàlla nag amul makka des fay mooy yàlla di ko nëbb ko def lu ne nit ñi yoroñ seeni i bët dégg nga waaye mënoo dox ba ne béréb bii dañ ciy foye Touba amul béréb bu ñuy foye dëgguñu fi benn espace nan lii espace nangam la wala nangam ak marché buy jaay boo boo dem naan boo bëggee pon da nga koy nëbb li nga dëmm gisoo fi jaay sangara lu mu mën a doon fa fa ko koy def fa koy wute ji moom doonul Touba gii wala lu muy nëbb lay doon kon xamaa madina Touba wa saadaha sharafa wa aman al ahlu wal jirana wa nuzula moo fi jëkk a indi gendarmerie bi mu fi indee xaj yi ñu naan Touba ni mel xaj yi seen blad dana xaj yi seen moromi xaj dong lay set loolu tey sécuriser ne Touba ba ku ne mën caa nga ne tuubaa rek nga gis dëkk boo xam ne mënoo faa génnee lenn loo xam ne dana leer nga teg sa bët man koo wax ñu màndargaal ko tam juyoog diine bu dee jumaa yi téeméeri jumaa ak ñaar fukk moo am tuubaa yu julli ak juma bokkul ak jàkk yi mënoo koo lim bokkul ak daara alxuraan mu ne waaye sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou nag dafa dafa taxaw loola ba noppi nag sàmm marché bi lépp loo xam ne lu ñaaw la mu jëlee ko ko moo moo moo yeesalaat marché ko nga xam ne ay mbaar la ak i Cheikh Abdou Lahad moo ko defaraat loolu kon ak dogu la loolu kon yitte la ju rëy yoo xam ne def na dundam gépp mu jeexal ko ci liggéeyal Serigne Touba loola nag la nga cay déggee mooy fàttaliku gi ñu leen di fàttaliku mooy nu xam ne fagaru waxtu wu nekk day jot waaye ni ñuy yéeme Serigne Touba nañ koy yéem ci jëf jamono ji nu toll jamono jëf la ndax bu fekkoon ne jumaa ji ba ko suñ muru sa fondement ba mu si ci fenêtre yi Cheikh Moustapha wàcc bu sëñ lu ñëwee bu yemoon ci ëskee rek ak fasaale ak maa ngi barkeeloo sama mag ju baax ji di wër jumaa ji di ko di raay jumaa ji du noppi waaye sëñ Fallu daa ñëw sañ ci dëkk laxasuwaay xam ne yeggale ko war na ko ba mu jullee ko 63 loolu sëriñ Fallu da ko def Cheikh Abdoulaye bi mu ñëwee gis na waras na ko yokk da koo yokk ba sëñ Saliou ñëwee lam ca war a def noonu ba mu fi jógee Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bi mu ñëwee gis nga lim def waaye gisaat nga yokk ko taxawalaat béréb yi Cheikh Sidi Moukhtar ñëw dolliwaat ci ñaari sooroor tey jii bi sëñ Mountakha ñëwee gis nga mu taxawal université boo xam ne 37 milliards la loolu li muy jàngale mooy yoonu murit du yoonu yéemu rek waaye yoonu jëf la mag ña nag lu tax lu ñu songoon man ko defe naa net li histoire dana jafe ñu li mag mu amoon milliard mag ñi defe naa pas-pas akuk dogu lañ amoon daanañ jébbale ay dërëm daanañ jébbale takkub sump daanañ jébbale ay soccu lu ne jébbal nañ ko sëñ waaye pas-pas bu dëgër nekkoon ci ñoom waaye nag amoon nañ dogu gu toll li sëñ bi bëgg ñàkk seen bakkan a gën a yomb ci loolu du am moo tax tey jii euh, ñu toj réew mi lu mat juróom-ñaar téeméeri dëkk wala juróom benn téeméeri dëkk ak nangam yoo xam ne murid yee ko gor boo fa jubee seen jumaa ya wala nga seen jàkka ya daaray alxuraan ñu fay defar aw nit li ñuy joué ci économie jafe na ko ko joué defe naa tey comité bu ne li murid yi génn ci ay milliards di ko def ngir diine jafe na jumaay Tuubaa ji boo ko noon évaluer ñaata milliards la jumaa ji mujj a nopp bërki démb ci Ndakaaru ñun tuddagun 20 milliards université 37 milliards te lenn du ci am aide extérieure maanaam amul benn yoon boo xam ne danañ taxaw naan noo ngi gërëm réew sàngam yónnee na fi nangam réew sàngam yónnee na fi nangam ñaar dërëmi i téeméer ak seen i dërëm lañ tax koo ba defal sëñ Tuubaa liñ bëgg loolu nag moo war a soññiwaat ci xam ne fii jamono toll sëñ Tuubaa moom ay noonam duñ bàyyi mukk ndax sëñ bee leen dérange sëñ Tuubaa moo dérangé dafa dérangé ndax te loolu gàttum xel rek ko waral la sëñ maam Samba Diarra Mbaye doon wax ne am ne moom de tey kenn du wujjam jamono jii jamono Cheikh Bamba sëñ Touba ku bëgg def morom bala ngay gam-gamle sa bopp ak moom bala nga koo def da ngay fexe ba tàmbaliwaat sañ cug Touba kir yeeg Mbakke bari fexe ba jeewal amaat biroom ndar am nga sa julli ci géej dem Gabon dellu si waat def li def boo taxawee bu ne un à deux ku ko munut muñal mënoo tëb di roi de sarène te mbëppatoo ak kol taxut sëñ Tuubaa di sa morom kaala taxut sëñ sa morom sëñ Tuubaa jëf jëf jëf moo cay tax a jot te kenn mënta jëf li toll nii li mu jëf faat na wa kaw nii abdallah xaadim alkitab fadlu min ilahi laa min alkitab nga ne loolu yàlla la soob rek mu jëfal ma ko waaye nit mënu ko fagg ba mu ko kon nun suñu bopp rusuñu fenn ci adduna bi nu waxtaane sëñ Tuubaa kenn du rus demal ci réew yi gën a sori bu naan sëñ Tuubaa ba sëñ doon sëñ Tuubaa ba léegi comme neex man ngaa sos mën ngaa am xalaat bu ñaaw waaye mënoo gàkkal sëñ Tuubaa kon nu nit ñoo war a fexe ba kenn du jaare ci noonu yëpp sëñ Tuubaa du fexe ba doon ay taalibe xam ne yoonu murit yoonu jëf la yoonu jaamu yàlla la ku jaamu yàlla nag faw yàlla jox la xéewal gisee sëñ Tuubaa ba muy wax ci xoqa li misaal gaañale dana kaanu ibadan bi taaati rabbihimu wa kaana jalla lahum rabban bi minnaati ku nekk jaamu bi yàlla te nu koo jaamu faw yàlla xéewale la moo waral barke bii nga gis ak léegi yëngu bi lépp liggéey bu yàlla nangu rek la lii di àdduna te li nga ciy gis la Abdoulaye Salim Ibn Hanbali waxoon ne li am picc cof ci am sàq ni mu toll mooy liñ gis ci àdduna waaye la ca sàq ma kenn laalu kon nun nañ fexe ba ay taalibe bañ a complexe ci Serigne Touba xam ne wasaxatul miidaan laa yux fiiha ibaau namlatin sulukan fiiha kala wala yu dannisul mutahara xawlu sawi danasi maa tatahara ay tuuma doo nga fi jëlee woon Serigne Touba yóbbu ko ci géej waaye Serigne tuba dafa wax ne ba na ca kaw sell waxi ku takk mënu koo takkal kon nañ nañ nañ nañ dëgmal bi rek te doon dëgg dëgg ay taalibe te nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla nangoo joxe addiya ak murit nag du sëñ bi sama gaañin laag sëñ bi sama copain laag ñoo gonee ndoo woon ñoo bokkoon daaraak sëñ bi dama bëgg gis nga sa téléphone bii boo ci deful crédit doo woote sëñ bi li la ciy jariñ mooy nangoo liggéey waaye sëñ bi këram laa reere bii bu ma ñëwee ñooy bokk fu mu sëñ bi dama kii te doo ko siyaaree dara loxoy kese képp ak tàllal sëñ bi ñaanal mbàkke dana baax dëkk bi daa dëgër ab murid da joxeet yi te kenn ku ne fa nga abonné ñu fexe ba xam la nga bañ am complexe nii gay ne mooy ful la bu nekku nga ne bàyyi ji li mbàkke am murid day abonné fu leer waaye foo bokk waa daaru rek ak waa daaru xudóos ak man murid laa waa gédé la te wut taxul leer nit ñi nañ abonné nañ fixé fi ñu nekk dëggël dëggal seen diggante ak seen sëriñ yi te nu joxe addiye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 ak sëñ Tuubaa mun morom ak ku bañ sëñ Tuubaa yaay torox ak naan da ngeen dañuy fexe noonu ba sëñ bi moom ba guerre jotee moom doo nga demoon gis nga li ñuy wax naan euh, sëñ Tuubaa dafa am victoire individuelle maanaam bi muy xare ji moom dong nga ku dul sëñ Tuubaa ba nga takkee xare ànd nga ak booloo sëñ Tuubaa ba muy dem moom dong nga te bi pay gi ñëwee sëñ Tuubaa mosu cee naan mbuusug ndox mës a dëkk cib terrasse ay néegam da daan senn di wal moom sëriñ Tuubaa mës a solub jasineer xéewal gi ñun ñii la ko bàyyee ngay walee waxtu yu sedd dëkk ci néeg yu te luñ ne liggéey est que rek bu ñu ca bëggee yamale suñu bi du sot bi xidmatin aw bi xobbin aw haddiyati ab murid day nangoo liggéeyal sëñ bi tey nangoo joxe addiye te bëgg sëñ bi te bëgg sëñ bi dëgg bëgg sëñ bi nag mooy lan xusnul ixtifa li athaari alqadimi dalaala in kunna muhibbina ku bëgg sëñ bi da koy roy waaye sëñ bi jëm penku nga jëm saw it ndax sa bopp la moo gën werante yeeg saagante ci réseaux sociaux yeeg Facebook yeeg nangam murid bu ne bu nekkee ca la ko war sëñ bi laa nee na ku la daq jotu la lu mu for sànni la ñi am jot ñëpp jëruñoo ma jëruñoo faale te borom jëm guy nàcc du wax jàmm nii sëñ Tuubaa mel na comme naqari man foo jëm laa xamul ndax bu doon boo dee am jàmm sax waaye boo dee armeel yu la suul bamba bamba la ñuy wax sab xol tàng te doo jóg ab murit du am jot li ko war ci digganteem ak jàng xasida li ko war ci digganteem ak def lu baax amul temps waaye 2000 yoo yor au lieu que nga jëm jébbale ko bokkoo ci benn daayira ab connexion nga koy jënde di saaganteeka wut ko lay wax yambar moo xam ne day sensé profil def jigéen baa mu sensé baatam kuy nëbbutu door a wax daa jar a waaye di wax te ngeme ko da nga naan fang na maa ngi ba noppi bañ a làqatu ji wut foo dugg wax ko ba noppi taxaw ñu teg la ci yoon noo ko mën a fajal suñu bopp fi ne nit yi adduna yi koo ci ne coos baaraam bu subaa ñu ne woo nañ ko gendarmerie waaye noonu dañuy saaga dinu xas loolu li tax gërëwul mooy xeex bi moom benn la woon fi ne combat jeex na benn combat fi amoon 1895 la sëñ Tuubaa daan ñëpp forum ga tax doo nga fi des ak jeexaat waaye tool yi moom jeex na yooyu nag bu munu bu munu dérange xam ngeen ne dëkk bu doon titre foncier Touba gi lam am njabootu Serigne Touba gi jël seen lépp jaay ko ku mën a am bi bu toll ni Cheikh Issa Diène sëñ Touba bu doon wut daraja sëñ Touba benn jataay nee na Cheikh Issa Diène tey yàlla may na ma ñeenti téeméer yi may ak ñeent fukk ak ñeent wala yu jëkk amu ko mu ma jamonoonteel amu ko yu ñëw sama ginnaaw amu ko saalixu na yëpp ko xemme man képp la ko yàlla jox Cheikh Issa ko ski ko may naa la ko ah ku mën a maye ñeenti téeméer yi daraja ak ñeenti ñeent fukk ak ñeent nooy xëccoo ay daraja yi adduna ak i maqaama te nit ñi am nañu xel xe am nañu xam-xam sëñ Touba bu doon xëccoo ki xëccooy dëkk baa muy xëccooy suuf baa muy xëccoo ndombay tànk kenn du ko am nañ dem xool vingt yi nga xam ne archive nationale tubaab bi cité woon nañ ko am na ñun doon sept sëñ tubaa ca nombre boobu huit la fa placé woon ngir di leen takkal ay garaat ku dul sëñ tubaa wujji nga rek a demul mësa nu ngoo dem ngir ndombal tànk mësa dem a dem ngir adduna mësa jaay wan ko ko tudd yàlla wan na ko ginnaaw palug yàlla googu noonu la ko yàlla fayee ndax man kaana lillaahi kaana jalla lahu wa man tawassala bi maahi lahu xobila kon sëñ Baye Jili noo nga lay sant ma xamal ak yow sama dajeeg yow it bis bu njëkk mu ngi nekkoon ci safar boobee laala jàpp jàpp li ma jàpp ci yow am na lu ma la waxoon ba ma ñëwee Dakar fekk la dama ne la yow de say wax ak liñ lay dàkkantale feeñ na keroog bi ma wooyee benn conférence Dakar sëñ Cheikh Thioro mii moom mu jot ma ma ne ko danaa ñëw soobe yàlla mu ne ma nu ñuy def ma ne ko tool bi sa toolu maama yow lay liggéeyal danaa ñëw bi ma déparé Touba avant may egg dakaar moom lim ma war a jox yónnee na ma ko ca jàpp li ma jàpp ci moom bi ma wooyee wax ma bis bi dama ne ko danaa jóg ngir yow am na lu ma jàpp ci yow ne génnu ma sax dem ci benn bis waaye danaa ñëw wuy si la ndax jikko yi ma seetlu ci yow gis ci yow warmaal waa kër yit Tuubaa yi dañuy dolli mais duñu waññi dara parce que ñeex lu mu tàng tàng du taal bopp toujours maa ngi koy répété ñeex mu taal bopp amut foo mën a bokk ak loo bari bari aal ak lépp man ngaa lakke de ba koo laal aw deram ñori ko mais doo taal taal moom sëñ Tuubaa ak waa boo jëlee ñeex sotti ci sotti ko ci bopp jël xaru sawara teg ca mu boole ñeex ak bopp taal lépp muy mooy sëñ Tuubaa ak waa këram waa kër sëñ Tuubaa du moroom ak moroomante ku koy wut da ngay seet feneen waaye sëñ du moroom xanaa ku ku lu waay goree di goree di goree di goree di goree di ginnaaw yow yëg nga ne jàmm ji nga am sëñ Tuubaa la ba fi bàyyi woon ëkk sax nga waggar ëkk gi xam nga senegal danga ngay dégg man du ma gone kenn mais koo bëgg a doon magam loolu dañ ko tax man du ma gone kenn ak sëñ bi damaa teral te te sëñ bi damaa teral joo xam ne boo tàmbali woon fii ci ndaamaatu gi ba ba ngay dem ca escadron ba rumbo filoo moom. lu nit di moom loo moom amut te koo wax na ko sëñ bi damaa teral teraangi sëñ bi mooy ay wataa ki kër kon bu dee loolu ñi ñi ñi ñiy sàcc nag ñiy jaay seen bopp nag ñiy jaay dorog nag ñiy dóor nag tubaab yeeg ñu bon ñi sëñ Tuubaa mag ñi dafa dañoo a toog di wax ne am am ku naan diw de borom borom barke la sëñ Tuubaa na ba jëppoo leen ku duy jibaa mag alal ba mu fees mooy borom barke daan na kon ana nasaraani daan na borom barke dëgg mooy ku say bokk ne domm ci bàmmeel ba ñibbi nga mën a fa sa bopp te barke ñett la sëñ Tuubaa ko firi loon sëñ Baara Jën dana ko barke ñett la bi nga sàcc bi nga abbu bi nga liggéey bi nga sàcc des na la dab duma la nungu ko mooy ñuy wëlal naan diwoo ma jur te doonu sa baay ba bu suñu tënk la fu ne day yem ca baayam ndax yàlla baay boobu la la sa takkal wër di ko la ko changé diw sama baay di ñi di sant sant sant woo santul ak ñàkk jom dong la loolu barke boo sàcc la foo la trouvé tënk la ak boo àbb boo ab bi dama koy leeral toujours tëj buntu jàmboor bu taxee ngay dikkalewu nit it bis day ñëw mu jeex am na fi ñoo xam ne kenn mosu leen a mën a ban a gis wala nga jot leen barke baayib jàmboor doo nga yor tëj baayib jàmboor ak tijji baayib ne bu ne noppi nañ koo gis nga génn ci biir te kenn du la woo am na ñoo xam ne li daan am ci appel kenn xamul nu dañuy xëy ba yàgg yor seen téléphone bippe seen bopp defee daa yàqu ndax kenn woowule te baayib jàmboor sëñ Tuubaa ne ko Mouhamadou Lamine barke bi nga liggéey yaa ak moom ba àjjana kon nañ faggu barke bu wóor nañ faggu barke bu wóor nañ faggu barke bu wóor te caaxaan wax naa ko gis ngeen lii ñuy lii ñu pine bii xewoon ci réew mi bii nga xam ne cam 15 mars la tàmbale woon ba tey jii bari na ku la daan jaay maanaam dama xatak boo ko waxee jàng ma ne non mënumaa ñëw damay jaar ngont bi demoom tudd demoo ngénte ku ci yëlwaani tu ko la sarax nga jël ndax dañoo incarné lu ñu ñoo di loo amut yoroo ñaat dërëm dama bu nekk gars yi léegi la ñu ne xaalis ma ne xaalis yombut <laughs> sëñ moor Guèye mais wax naa ko tey nee naa ko sëñ Mor ma ne ma ko koo xam ne loo am dañ la koo jox tiitalu waru la loo am rek dañ la ko jox. bu la nit ñi gisee fàtte bi ma takk nii léegi fi may nuyoo fee xaw ma ku mu doon dama ma ne ba ma takkoon rafet na dañoo nuyoo mu lamb lamb tekki montre am jox la lamb bi poosam yurut lu mu la jox jox la léegi ndax sa maam joo tudd wala sa baay boo tudd sëñ Touba tax léegi nag nooy dikkee fekk waa kër sëñ nga ne lu ma am sëñ Touba la ma def leen morom ak ñàkk jom la rek taam na ñoo xam ne seen dëkki seen seen dëkki maam tool yëpp buñ ko jaayoon mu tudd vingt mille duñ ko tudd sax boori Kajoor la wax ak boori Bawol seenu dëkk seenu lammiñ du ko laal ñëw Touba neex nga bew bu sëñ bi waxee nga ne daa waroona sëñ bi warutoona lu tax ngay sëñ bi lépp ak sëñ bee murit laa waaye nañ dooni murit te dooni taalibe te jox suñ bopp sëñ Tuubaa te yaakaar xool ñii na lew tëdd fii ci bàqeyaan xool ñii na lew tëdd ci armeel yaakaar gi ñu yaakaar sëñ Tuubaa tax ñu tëdd fa seen yaakaar du tas koo xam ne boo dee ñu takk andi nag bi ngay dund na ngay jëf lu ko may te lu waay amut bu ko ñoddi ñoddi baaxut de lu ne as doyu ca as xam-xam as xaalis as ndoole dara doyut maanaam as as as dara doyut fi ne yëf yi na waar ñi doon ñàngal ñëpp di wax ne dañoo yor xaalis xam nañu yuluñ dara sek yalwaanum sekkereeg yëpp a ngi ci biir na xam naa fan yi de moom dëkk bi daa yëpp programme la la ah, gi daa am fi sax buñ ko bëggee ñaan dañ naan la ma ko barkeelu barkeelu kenn du ko laaj boo ko xasee laaj yalwaan la am barkeeloo la ñuy wax ak bii baax naa ak man nga ne ko man mi ko yor la gën a baax <laughs> kon sëñ Baye Djili maa ngi lay sant bu baax di la gërëm euh, di bég ci yow bu baax ndax sa maam yëpp sëñ Touba la waaye fan yee an ak sëñ Cheikh Coro mi ak sëñ Cheikh Abdou Mbaye Cheikh Khady yendu sama kër ci koor gi waaye boole ko yar ak dal ak i maa ngi baalu ñëpp àq nag maa ngi leen di gërëm taalibe sëñ Touba yëpp di leen safoo di leen di leen di leen gën a bàyyee sunu bopp ndax gis nañ seen bëgg sëñ Touba gis nañ seen taxawaay gis nañ li leen sëriñ Touba jaral kenn doful xam nañ yi xew waaye tey da ngay gis nit mu saayire lool te xol bi sëñ Touba dong ci nekk kon maa ngi ñaan taalibe yëpp seen bëgg sëñ Touba yàlla na ko yàlla na ko yàlla def liñ bëgg sëñ bi yàlla na am li sëñ bëgg ci ñoom it yàlla na am nu yàgg fekk sëñ Mouhamadul Mountakha mi mu yàgg fi lool yàgg nu yàgg yàgg noo jiite yàgg nekk sunu kanam ba li mu bëgg a liggéey lépp mu yàggale ko ci barke Xaadimu Rasuul jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah